dal leen ak jàmm ci li gën a fës yéenekaay yi ñu doore ko ak l'évidence quotidien ma xëy fësal président Macky Sall ma réceptionné lu toll rek ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki bus ay bus yu bees tàkk laa la wax ay bus Dakar dem dikk leneen li journal bi addu jëmale rek moo di amadu Ba mi nga xam ne rek journalub l'évidence na mu ko daal di dippee moo di un espoir perdu de la l'APR li moo tax xam kay mooy bés bu kii di Boun Abdallah Dionne nekkee candidat wu président Macky Sall cey loolu waaye politique moom fii ci réewum Sénégal dara rek boobee bettee ndax lu ne am na fi direct news xëy di fàttaliku Serigne Saliou Mbacke boroom jamono niki tey ji yemook bés ba mu génnoon àdduna di ko ñaanal yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem di Quotidien naan la kenn dootul fàtte kay mooy atum 2023 at mi nga xam ne rek réewum Sénégal lu nekk dund na ko bu dee ay accident yu metti am na fi ay marché yuy tàkk ba jeex laa la wax njaayum dorog mi mel ni tulleeg màlle barça barsàq gi nga xam ni la mu rey ci ay doomu aadama kenn xamul toll jàmm rek te bu mu amati fii ci réewum Sénégal le quotidien dellu siwaat ca njàng maak njàngale ma te naan du léppay ubbi fële ca université Cheikh Anta Diop waaye ñenn ñi moom léegi rek ñu door seeni cours l'indépendant naan yéen a talum njàng waaye li ma xam kay mooy Ousmane Sonko moom niki samedi la ñu ko fas yéenee investir coalition Sonko 2024 moom xawma ko amul ab candidat waaye ñoom am nañu ab candidat di ki samedi a la wax la ñu fas amal lii di moom tàmbali na ca Matam te campagne jotagul diggante maire bu Iñaam ak bu bokki jaawe ma ne la ay coup de ñoo fa naroon a tàkk laa la wax li ko quotidien dalal candidat wu benn Bokk Yaakaar di Amadou Ba te inauguration BRT ba moom Amadou yëkkati ay kàddu di sant président Macky Sall naan kon Sall ngaari gàcce ngalaama fépp ci àdduna bi laa la wax yaa fi njëkk am BRT bu courant di doxal témoin naan kon Amadou yow moom noppil ndax dañu laa ignoré demuk président Macky Sall kay lépp la ñuy rëccu waaye du yow mi nga xam ne kenn waxul say wax yor yor naan Ousmane Sonko moom yàlla képp moo ko mën a teree bokk yii la élection donte moom Ousmane ma nga ca kaso ba waaye déposé na lii di ab candidature am fas yéenee dem rek amal lii di investiture am niki samedi ca Parcelles Assainies tàggat yaram ak réew mi quotidien ma daal di rek fësal Lamine Camara fi mu toll nii équipe yu mag ya nekk ci Angleterre ñoo ko teg bët bokk na ci Chelsea ak équipe bi di Brighton stade yéene kaay moom xëy samp ab naan ndax réewum Sénégal mi mën naa jël coupe d'Afrique te Boulaye Dia bokk ci sunu làmb ca filmu komba Jackson ak soq niki samedi bi ñu génn la daal di fësal ñaari mbër yee jàkkaarloo nañu daal nañu jàppante kii di soq imposé Jackson dóor soq jàpp ngemb daal di xëcc padd li jaaxal ñëpp kay mooy ana fan la Jackson jaar ba rocceeku bàyyi kii di soq mu nërmeelu ay ca mbokk yu ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm jël ngeen jëf